ak la 2STV. Alimane bañ na déedéet dara amul dara amul Alimane ngi arrière Lac Rose Alimane jëlaat na Alimane jël na ah ko war ko ndam ba ko ci suuf. lay lool la oh. champion c'est ce que j'avais jeex waa ñu joxe ko dikku cuun ndeysaan at bi bis na Lac Rose ama ba jël na ña nga ci suuf plaqué na ko. waxee naan jatat door na Amanekh jëlaat na Lac Rose Amanekh jëlaat na Lac jël na ca suuf. po bi nga xam ne Lac Rose jëlaat na Amanekh bañ Amanekh a jël neex a jël ña ca biti. Amanekh Lac Rose yaakaar bu di jëla la amee Amanekh a daan Amanekh Lac Rose Lac Rose ah, ah. dafa sonn daan. toj na nam bi Pape Mor Lo la ko dem na la ko topp na Pape Mor Lo la ko topp na Sokone Sokone loolu bëgg ko mu bëre Pape Mor Lo la ko door na ci suuf la ko ngi door ci suuf Pape Mor Lo Pape Mor Lo daanu na wala daanu Pape Mor Lo Pape Mor Lo daanu na daan na ko moo ko pu doole kay si na me bëre bëre bu di bëgg xeex Moussa takk na ko xale ba rasu na takk na ko rasu na ko daan na ko daan na waat na Moussa ak Tonnerre ñoom ñaar Tonnerre a ngi dox jëm ci kaw Moussa Ndoye ndax Tonnerre daa bëgg a fayu waaye yaa ngi bëreeg ndaanaan Tonnerre Moussa Ndoye ak Tonnerre daje nañu Moussa Ndoye Tonnerre ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi bëre ci suuf Tonnerre bëgg daw na plaakaal Moussa Ndoye bon mat na ko mat bu rëy Bruno Moussa Ndoye daan na Tonnerre jël bu rëy la ilaha illallah ah Mamadi met na ah Mamadi jël na ko Moussa jël na sax waa jaa ngay daanu yeesu ca suuf na ko eh Cheikh Tidiane waa jaa ngay